grand na nga maa ngi lay ziar grand ça va. kii de moo forcé ma jël la parce que yéen a bokk koñ. waaw ah. yéen a bokk dëkk. waaw ah. ah, waaw noonu la. borom la bëgg la borom borom baax la moo tax. mais yaa si jàmm. da nga bi ça va. sant mais Malick Malick ñoo la soxla de est-ce que xam nga loolu Sénégal ñoo la soxla. waaw man man man a soxla li wax maa bañ Sénégal ñoo la soxla Malick. Sénégal ñëpp lay laaj. waaw yàlla baax na leneen bu Sénégal ñoom leneen bi lu du jot rek yomba